wa ala alihi wa sahbihi tayyibina tahirin asalaamaaleykum ñi nuyu ñëpp ñoo xamante ne nii wax dëgg yàlla xëy na euh, sinu kàddu ci ñoom dana nekk luy door a tàbbi ci seeni nopp ndax yoon bi ñi bëgg ñëw ak yéen génn ci ak yéen am na ci ñoo xamante nii yàlla dana def ñu ngi ñuy doog a dégg am na nag ñu ci yàgg dégg ñoo xamante ni yàgg nañ ñoo topp ci li nga xam ne moo nekk YouTube bi euh, ak Facebook bi waaye am na si ñoo xam ne amaana dañ leen doo ko jot tey ci ñun ci seen kaddu euh, mu nekk kaddu nit koo xamante ne nii wax dëgg yàlla ab jaamab yàlla bu xeebu boo xamante ne nii ñu koy wax Serigne Cheikh euh, mu yëngatu ci wàllu lasraar waaw ci diggante Alquraan ak li nga xamante nii moom moo nekk sunguf bu ñu sunguf ren yaa ngi ca biir xob ya xas ya lépp nga ci biir muy nuuraan yi ba ak itim li nga xam ne moom mooy zulmaan yi bi muy gàllaaj gu ñuul waaye gàllaaj ñuul tey man taxut mu ñëw pour wax waaye dama ñëw rek pour leeral pour wan nit ñi yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo pour mën a ñaanal jaam bi mu yëkkatiku jot ay càkku téefam ci lu amul dara loo xamante ne ni euh, sikk sakk la ndax ñaan yàlla fii lañ ko fekk yàlla moo wax ci alquran mu ne wanu nazilu min alquran ma huwa shifa wa rahmatul lil muminin te njëkk loolu sax daf ñoo wax ne ñun na ngeen ñaan yàlla ndax yàlla moo wax mu ne ad'uuni astajib lakum na ngeen ma ñaan ma may leen ci alquran li may wax ni alquran ju wér la mu pare tegaat ci mu ne wanu naziru min al quran maa wa shifa wa rahmatu lil muminin al quran ji wanu naziru min al quran wàccee nañ ci al quran ji maa wa shifa li nga xamante ne nii moom moo di ak faj faj gi nag lépp a ngi ci biir moo xam fajug wér gi yaram la moo xam fajug càkkutéef gi doomu aadama am ci àdduna la pour mën a dundee moom la mu ne wa rahmatu lil muminin ak yërmande ñeel ka nga xamante ni moom moo gëm muy mumin ba ñu am ci yoo xamante nii yu ñu def la pour ñaanal nit ki nag dafa bëri ay façon te nit ki li njëkk coom li may wax rek ku dem ci sama vidéo yi may def ci YouTube bi danga ci fekk ci wàllu waxtaanee biddiw ma wax ma ne nit ki mënoo koo ñaanal te xamoo biddiwam ndaxte nit ñi yàlla daf leen bind ñii seen biddiw ndox la ñii seen biddiw safara la ñii seen biddiw ngelaw la ñii seen biddiw suuf la kenn ku nekk rek dafa am benn période boo xamante nii ca nga ko mën a ñaanalee mu gaaw mu baasharatan ñaan gi nangu xaasatan ta du tardi mukk boo demee ci wàllum itim noob ak wàllum dëddale itim kazalika noonu la dafa am waxtu woo xamante ne nii biddiwu nit ki euh, dafay daif maanaam dafay faible daif mooy faible ci arab dafay faible biddiw bi nag bu tollee ci période boo xam ne day faible pour nga jàpp nit ki noob ko boole ko ki nga xamante ni moom la yàlla def ñu war a ànd daf lay yomb lool ba boo ko defee xaasatan mubasharatan dafay nangu bu fekkee ni wàllu dëddale bi itam noonu la lu nekk rek dafa am fu ñu koy jaar bu ko defee man ko am comme lu alquran waxoon rek mu ne wa aatu buyutan min abwaabiha na ngeen dikkee kër ya ca buntu néeg ya waaw ndaxte néeg daal boo bàyyee buntu ba jaar ci fenêtre bi waxuma ne doo dugg waaye dana jafe lool wala nga xam ne boo duggee doo fekk lu neex kon lépp rek dañ koo war a teg ci yoon li kulli shay'in tariqun lépp loo gis rek dafa am yoon ñaan yàlla bi ñuy def nag ci diggante alquran ak sunguf rek ci lañ koy def mun nekk ci loo xamante nii comme tey jii boo demoon ba bëgg taal nit ki yëkkati ko bu ko defee ay mbiram daal di dox dangay ngay jéem a xam biddiwam ba pare ndax wax naa la sànq mel nit balan nga ñaan dangay ngay xam biddiwam bu fekkee ne biddiwam ngelaw la kooku dangay ngay bàyyi ba nga xamante ne nii ngelaw li maanaam euh, def na tekk woo xam ne kon ku nekk xam na ne am na jamono joo xam ne ngelaw li dafay bëri am jamono joo xam ne ngelaw du am da ngay ba ngelaw li na tekk nga doog jublu ci ay mbiram boo jubloo ci ay mbiram nag incha allah rabbi taala bokk na ci yi nga xam ne ci la ñuy xambee doomi aadama taalee ko muy alam nasrax bee ne ngeen gis nii alam nasrax bii la quatre-vingt-dix-neuf alam nasrax moom ngay bind téeméer bu manqué boole ko ak yi mu àndal incha allahu rabbi nekkul lu ñuy wax léegi boole bokk na ci itim li nga xamante ne nii moo nekk nii muy sóoratul najm sóoratul euh, najmi moom mooy maanaam biddiw ba waaw loolu rek la léegi bu ko defee da ngay fexe nga daal di bind ubbi mbind mi comme ni nga ko defee nii kun bisimillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa muhammad wa sallam boo pare nga bind bisimillahi rahmaani rahim najmu iza hawa boo pare nga daal di bind zuyina linnaas xubba shahwaati min annisaai walbannina ba ca zalika mataaul hayati léegi boo paree rek nga daal di euh, continuer laa ji madallah saahibukum wa ma qawaa léegi bu ko defee rek nga continuer zuyina linnaas hubbu shahawaati mina nisaa wal baniina ba ca fam yem nga continuer laay ji moo nekk nii mbind mu bëree bëri la moo xamante ne nii dafay jël lu jege fanweeri fooy wala sax lu ëpp moom lay jël moo nekk nii ba keroog ñu koy tëj nga tëj bi moo nekk nii macha allah boo paree nga tëj ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin al faatixi lima uxliq ba mu jeex léegi mu paree da ngay fexe nga jéem a ut yi nga xamante ne nii moom lay àndal rek nga boole ko ak moom lu demee ni maanaam ren yemi àndal incha allah rabbi boo ñëwee itim ci wàllum euh, sunguf dangay gis ne am na ci yoo xamante ne nii maanaam pour taal nit ki mu gaaw tàkk mu baasharatan la yàlla defal ko kaaraange ubbi ko yu demee ni ñetti sunguf yi nii boo ko boolee bu ko defee rek nga jéem a Euh, fexe di ko sangoo nga boole koo tegtal yi nga xam ne moom lay àndal yi nga xamante ne nii itim maanaam bëgguma tudd turam waaye daal ci wàllu ngóor rek ci lay dox ak yeneen yi nga xamante ne nii dara nekkut njëriñam rek li nga xamante ne nii moom moo nekk luy dindi liggéey ak lu bon lépp luñ la def boo ko suuroowee rek da ngay gis ne dafay daal di dañ ba set wekk te ko loo ko defati incha allah rabbi ci kawam lay këpp yii nag moom booy génn suba sa kër rek. da ngay fexe nga jéem a def sa loxo bi euh, ci biir mbuus yi ba tibb sunguf ba mu leer na jàpp nga sunguf bi nga bàyyiwaat ko rek daal di forati sa loxo yi ba mu tàng nga raay sa kanam gi génn am na ci yoo xamante ni ñi liggéey lu demee ni nomba gii nii euh, gis nga euh, juróomi gaw moo nekk nii boo paree fas-fas ci nekk rek dañ ciy dugal puso rek nga daal di damm ko bu ko defee nga yëy guru gu xonk boo yëy guru gu xonk ba nga xam ne mokk na sa gémmiñ rek bu ci nekk rek nga buusu ko ci ci fas-fas yi nii boo pare nga daal di ko tëj mu nekk juróomi ngaw doo accidenté doo fekkee mukk musiba te incha allah rabbi taala doo dugg kasu mukk ba laa yoomi diini bëri na yuñ ci war a mën a wax yoo xamante ni néew na lépp dañuy wax gis nga lu demee ni secret xaalis bi muy fii jiidihaa bi euh, dafa am adada buñ koy bind maanaam benn lim boole ko ak secret xaalis bi nga xam ne maa koy liggéey waaye néew na lépp lañu mën a wax ndax temps bi mayuñu ko waaye incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ak yonentu bi incha allah rabbi dinañ ñëw beneen yoon indi leen ci ay leeral gën leen a leeralal waaye dañoo ñëwoon rek pour wan nit ñi ne leen lii dañ koy liggéey képp koo xam ne daal am nga xaajo boo xam ne dafa tëw faju boo ñëwee incha allah rabbi taala ci ñun ñu defal la listixaar xoolal la liggéeyal la ci alquran wala ci gàllaaj ñuul ba nga gis incha allah